mbokk yi comme ni ma ko faral di defee li ci gën a ëpp damay ubbee ci suñu kàllaama bu ma ci paree dinaa ko tënk ci kàllaama nasaraan mbokk yi tey wala mun naa wax sax euh, fan yi yëpp suñu xol neexul suñuy nelaw néew na suñu xalaat bari na te dara warul ko nag loolu diis gi nga xam ne am na ci réew mi muy ay bakkan yoo xam ne rot na fi kon dama doon ñaan balaa ñuy dugg ci waxtaan bi rek ñu daal di def une minute de silence jagleel ko suñuy doom ndax ñi fi faatu ñépp walla ñi ci faat ñépp ñun lu ñuy doon ndaw ndaw ndaw mat nañu doom tey jox nañ ma liste boo xam ne jeexagul ndax ñi ngi confirmer ñi ngi xool ñeneen ñi ñu ngi ci tudd ba am confirmation waaye liste bi ñu jotagum mat na déjà fukki nit benn bakkan bu rot rek ci anam gu mel nii nga xam ne dañ koo faat musiba la ci réew mi rawatina nag buñ nee tey mat na fukki bakkan bakkan yooyu nag mooy ku ñuy wax Baye Cheikh Diop amoon fukki fan fukki at ak juróom ñaar 17 ans ñu ngi ko faatee fii ci yëmbal Cheikh Koli amoon ñaar fukki an 20 ans ñu ngi ko faatee ca Bignona Famara Goudiaby moom it amoon ñaar fukki fan ñaar fukki at 20 ans ñu faat ko Bignona Pape Sidi Mbaye amoon moom it ñaar fukk ñaar fukki at vingt ans ñu faat ko fii ci Kër saa ñu Camara am fukki at ak juróom-ñett dix-huit ans ñu ngi ko faatee Diaoubé Mansour Thiam moom it am ñaar fukki at vingt ans ñu ngi ko faatee fii ci Ndakaaru Alassane Bari amoon fukki at ak juróom ñaar 17 ans ñu ngi ko faatee fii ci centenaire ci Ndakaaru Moussa Dramé amoon fanweeri at ak juróom 35 ans ñu ngi ko faatee ca Ndofane Bourama Sané amoon fukki at ak ñaar 12 ans ñu ngi ko faatee Bignona ak Modou Ndiaye nga xam ne moom lañu ñu mujjee xibaare ñu faate ko tey fii ci Parcelles Assainies ci anam yoo xam ne ñaaw na fu ñaawaay yem kon ñu ngi leen di ñaanal borom bi xire leen xaare leen àjjana may ñaan nag ñi fi nekk ñëpp journaliste comme participant ñu taxaw def une minute de silence jagleel ko suñu rakk yooyu ak suñu doom yooyu jërëjëf maa ngi jox suñu sëriñ sëñ Mansour Sy Djamil mu jagleel leen ay ay ñaan yoo xam ne xaasatan la euh, yokk barke rek comme ya yàlla def mu teew fii te suñu sëriñ ñu jox ko micro bi rek mu defal leen ñaan ñaan yàlla mu nandal leen si déggu Kawsar lu Allah benn bu nekk ànd ak bismillahi rahmaani rahim waaw ñeneen ñi nga xam ne bokk noonu ñoom jine ñu def seen prière <coughs> waaw man di min naa ko parce que je suis président du conseil mondial des religions pour la paix wala ñuy def bu nekk bu nekk day ñaan ci sa diine رسول عليم من العالمين يا عازم سبحانك نزع يا عازم الزاجب عن المثال والشريك والنزيل والصحابة والود وأنت الحق أبدا والصمد في حياتك الأبدية من بسط بالحياة من حياتك فأنت باقي فلا مهلك كما لك الرقاء ولا عبادك كما لك الرقاء ولا عبادك اللهم مذكور من لطفك الحفي الذي إذا نطقت به لعبد الكفية واسترهم بسترك الجميل الذي صدق به نفسك حتى لا عين قرأته ولا يد تصل إليك في مماته اللهم صل على سيدنا محمد وسلم جميع الأحوال ولا أحتاج وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عن نجعل درجات بلغنا بها وارزقها في äh, kon dinañu essayer tënk waxtaan bi ci lu dul gudd torop gannaaw bi ñu delloo nuyu sénégalais yi seetaan yépp di nuyu ak di gërëm kilifa réew mi kilifa diine yi kilifa aada yi di rafetlu seen taxawaay ci réew mi ndax wax naa ko ci sama intervention yu jiitu biir na ma man ni ñoom lañ ca waroon def def nañ ko ca bañ ko waree def te aajowul ñu koy jeebaane wala ñu koy wax ci kaw dafa fekk nag kilifa diine moom orma rek lañ ko lañ ko waral lañ ko warlul am na loo xam ne bu naree xotti orma suñu waxee ci suuf yem ca waaye ku bañ a dégg ba mbir mi tàng sa loxo yi di nga dellu si ñoom woowaat leen kon ñu leen gërëm ci taxawaay bi di gërëm kilifa aada bu baax tamit di gërëm ñi fi teew ñëpp. ñii fi nekk ñëpp amul kenn koo xam ne politique wala parparloo moo la fi andi amul kenn koo xam ne li nga daj ci fan yii parparloo moo tax waaye ñi fi teew ñëpp leen tax a jóg ba tax ñu daj ci lu ma ci dajul man mooy senegal yitte gi ñu am ci senegal patriotisme ak am. am certitude ni dañu war a taxaw ngir réew mi dañu war a taxaw ngir ëllëg dañu war a taxaw ngir suñu doom ak suñuy sët kon ñoom ñëpp dama leen di gërëm man personnellement waaye dama leen di gërëm ci turu peuple sénégalais ndax peuple sénégalais la ñu taxawal taxawal ñu Ousmane Sonko ñi fi jóg ñëpp nag sonn ci bu doon jëm Ousmane Sonko rek peut-être dix pour cent yi dinañ génn wala quinze pour cent yi bu kenn naagu ba foog ni yow yaa tax sénégalais yi génn déedéet li tax lii am mooy yëg-yëg bu kenn ku ne am ni suñu réew suñu askan mu ngi traversé ay moments yoo xam ne bu ñu seetaanee ba mu demee nenn rek defe naa dina rëcc définitivement kon maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ci turu peuple sénégalais bu loolu weesoo may sargal jigéen ñiit ndax gis nañ seen taxawaay ci xeex bi te tey dañ leen ko mandargale muy journée 8 mars jigéenu boor bu nekk nag du jigéenu Pastef kese jàpp nañ fay jigéenu Pastef gis nañu seen dëgërlaay ak seen muñ ak seen xeex ba fi mujje waaye jigéen ñi taxaw jàpp ci xeex bi ñu ma mun a lim ak ñu ma mun a limul defe naa Adja Yacine ngi nii toog sama wet Eh, sama avocat Aïda Mbodji ngi ne ñoom Maïmouna Bousso ak keneen ak keneen su ma leen doon lim tey du jeex ñoom ay Sara ñoom eh, eh, nu mu tuddati Maam Jaara Faam ñooñu ñëpp nag ku ma limul rek ci mer ñu delloo leen dugal leen ci journée bi di leen jaajëfal bu baax mbokk yi li xew ci réew mi doy na li xew ci réew mi ah def naa ñoom Decroix ñooñu ñooñu ëpp expérience foofu ñooñu fi gën a yàgg waaye gëw ma ni lii fi xew mës na fee xew ci Sénégal du événement 63 du événement yi ko jiitu du 68 du 2000 du 2012 88 93 ba tey jii defe naa lii xew ci Sénégal mës fi xew. ba tey jii Sénégal mooy numéro un ci actualité mondiale journal boo ubbi Sénégal mooy numéro un ci actualité mondiale kon loolu du lu tuuti il faut que ñun sénégalais ñu mun koo natt xam lii li mu doon ak lan la war a marqué ci suñu histoire réew parce que su dee mënuñu ci jël ay jàngat waaye gagné ci ay points ba lii dootul am ci réew mi bu boobaa defe naa dañoo sacrifice yi dootul jëriñ dara ñi seen bakkan rot ñi si gaañu te ñu bëri ñeneen ak ñeneen ak ñeneen defe naa dootul jëriñ dara kon bu ñu waxee loolu dañuy dellu euh, delloo njukkal ni ma ko defee ci ñi nga xam ne seen bakkan ron na ci te dinaa ci dellusi ma def ko ci ñi gaañu ndax ñi gaañu bëri na te am na ci ñoo xam ne gaañu gaañu yu xaw a garaaw la di ñaan yàlla rek mu bañ a weesu foofu di leen delloo njukkal ndax mbir mi ñooma du ñun di ci def nag di ci jagleel ngërëm bu particulier ñi nga xam ne mooy ndawu Sénégal yi la jeunesse sénégalaise di leen delloo njukkal bu particulier nous avons une jeunesse formidable yàgg nañu wax ndawu Sénégal yi nii ndawu Sénégal yi nële déedéet suñu jeunesse daf dañu jël dañu am avance ci ñun ñun li ma gëm mooy suñu jeunesse dañoo am avance ci ñun te taxawaay bi ñu taxaw wane na ko ndax ku dem di jàmmaarloog alkaati mu yor arme yor lu la mën a rey yor lu la mën a gaañ yow yoroo lu dul say loxo te defoo ko parce que da nga am dërëm booy xaar ndax am na ñu féete beneen wa fet beneen fànn ñu leen di jox xaalis pour ñoom ñu dem rey faat ay bakkan yow defoo ko ngir dërëm boo xaar waaye xam nga ni sa avenir moom moo nekk en kon ngàcce gàllaama jeunesse sénégalaise boobu te ñu leen di wax ni day door rek bis ni ki tey na ngeen xam ni réew mi seen réew la décision bi seen décision la ñun acteurs politiques yi ci seen waaw lañu ñu war a doxee yéen la war a déglu kon bu leen nangooti di seetaan ba mbir mi egg foo xam ne buñ ko waree récupérer sax li muy yàq di boomatul dina ëpp liñ ci mën a jëlee te loolu naa ci dellu si bu si kaname ma wax nag nii ñooñu ñépp nag nga xam ne sonn nañ ci mbir mi même ñi toog seen kër di ko naqaru même ñi yor seen kurus ak seen sijaada di ñaan bu ma nekkee fii tey di waxtaan ak yéen xam leen ni yéen yéen a tax ndax bu ngeen amuloon taxawaay boobu waxuma la tey jii waxuma la ajjuma bi passé waaye lën di lundi lundi 8 février laa waroon nekk rëbës kon tey du du ma toog di wax ak yéen kon bu leen kenn gëmloo ni dañ ñoo may faveur may ñu faveur waaye seen taxawaay li mu firndeel rek mooy li tubaab naan la souveraineté appartient au peuple mooy kàttan dëgg dëgg dëgg dëgg sañ-sañ dëgg dëgg dëgg ci biir réew askan bee ko moom kenn moomu ko ñoom dañoo faral di wax loo wax ñu ne la force reste à la loi waaye la mooy le peuple la loi du député la loi du Macky Sall la loi du Antoine Diome la loi mooy la volonté populaire ku dem nag ba sàggane ko foog ni loi yi ñu voté te peuple bi voté ko mun nga koo jalgati di ko teg ci kaw nit ñi peuple bi dala koy fàttali te loolu moo leen dal tey kon taxawaay boobu ngalawaay bu mu dañati Sénégal bu mu dañati parce que li ñuy wax les grande démocraties boo gisee njiit yi am lu ñu sañul foofu mooy askan wi dafay taxaw jonn di leen surveiller saa suñu commencé génn rek nit ñi génn ne leen lii duñ ko nangu ñu dellu waat kon ñun ñëpp nañu am taxawaay boobu bis ni ki tey ma wax tamit nii ñii nga xam ne ñi ngi ci kaso yi tey lu ëpp téeméeri nit ñi ngi ci loxo Macky Sall ñii Tambacounda ñii Kédougou ñii Ziguinchor fii Ndakaaru ba Euh, euh, Saint-Louis Tivaouane fu nekk jàpp nañ fa ay nit ñoo xam ne sàccuñu reyuñu nit wurujuñu laxasu laxasuñu ay billets détourné wuñu xaalisu réew mi seen crime mooy dañoo manifester te constitution moo leen jox droit ñu mën a manifester loolu ñu ngi leen koy ñu ngi massawu ñooñu waaye di leen xamal ni duñ leen seetaan te dinaa ci ñëw bu si kanamee di massawit ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen alal parce que dégâts matériels yi bëri na loolu du woon cëslaayu mbir mi ñi jóg di manifester duñu ay bandi duñu ay saay-saay ay nit nag mën nañ cee rax waaye loolu taxu leen woon jóg te it suñu xeex jubluwuñu ko ci askanu sàngam wala réew sàngam du loolu mooy suñu xeex waaye dafa fekk. da am fu mbir di toll lépp mun na cee jaxasoo lépp mun na cee am waaye loolu di woon cëslaay bi parce que ku bugg a yor réew ak ku bugg a defar réew doo toj al allu jàmbur doo yàq oto jàmbur doo toj kër jàmbur kon loolu ñu ngi koy massaw bu baax it ñi mu dal di massawu njabootu ñi ci faatu di leen leen jàll te bu soobee yàlla dinañ góor góorlu ba kenn ku nekk ñu def suñu délégation ñi fi nekk ñépp dox ñëw jaale si leen di masaw njabootu ñi gaañu lañ ci mënit ci taxawut nañ ko def di masaw njabootu ñi nga xam ne tey caabi féete na leen gannaaw wax leen it seetaanuñu ñooñu ndax gannaaw bu ñu jëlee avocat yi leen war a défendre kenn ku ne ñi ngi góorgóorlu ci lañ la mën a jàppale ba doo tumuranke wala sa njaboot du tumuranke waa mbokk yi lii lépp lan moo ko waral lii lépp ci ay tiis yu dal ci Sénégal lan moo ko waral li ko waral mooy li tubaab bi wax cupidité ak boulimie du pouvoir mooy xiif bi nga xam ne Macky ak ñi mu àndal xiif nañ ko nguur ak yaakaar ni ñoom dañu war a mun a yor nguur gi toog fi ba faw lii lépp looloo ko andi moo ne de ay at ci gannaaw lool lañu xeexoon ba ay bakkan rot fi li andi lii mooy nguur gi ñu teg ci loxo Macky Sall ne ko jox nañ la suñuy moyen jox nañ la budget jox la administration jox la justice jox la armée jox la lépp loo soxla la ñu bëgg mooy nga defar réew mi la bëgg mooy ndaw ñi am liggéey la bëgg mooy nit ñi faju la ñu bëgg mooy tale yi baax Macky Sall wëlbati loolu lépp jël ko mu doon doole bu muy jël di ko teg ci kaw euh, citoyen yi muy kuy politique muy kuy mouvement citoyen muy kuy société civile ku ne d'accord maak Macky Sall rek teg na doole googu sa kaw loolu moo ñu andi ci lii mu ànd ci ak ay nitam yoo xam ne duñ ko wax dëgg bal sax boo moytul ñoo ko yées moom ci boppam ndax lii am lépp nag acteurs yi bëri na de waaye li ci ëpp acteurs yu ndaw la boo ko doon seet ñeenti acteur la muy Macky Sall Antoine Diome Malick sal ak Bassirou Gueye ñeneen ñépp ay suq lañ yoo xam dañ leen ni defloo ay ancien directeur dome nag ak ay euh, avocat ak ñooñu ñëpp dañ ay pion lañ waaye ñeent ñii musiba Sénégal yépp ci jamono ji ñu toll tembe ci ñooñu la est-ce que jaadu na 16 millions de sénégalais ñeenti nit rek lëmbe leen est-ce nañ ko mën a continuer nangu ci dëkk bi loo wax nag ñu ne la ñun ñoo yor nguur force restera à la loi te loi boobu duñ ko tudd lu dul bu dee opposant loi boobu dañ koy wëlbati pour mën a jot jot jot ci opposant waaye ñoom saa suñu waree loi bi war a dal seen kaw mu ne mukk du fi am ñaata nit ñoo fi def njombe yoo xam ne kenn mënu ko tudd te ñi ngi romb Sénégal yi di leen narge loolu nag lañu mënata nangooti looloo tax nit ñi jóg ne lii dootuñu ko nangu dootu fi am ñu war nag di waxtaan dëgg ndax Macky sal li ko bewloo bokk na ci ñun sénégalais yi ñenn ci ñun sénégalais yi balaa may dee nit ñi toog ñi naan analyse politique lañu ñii naan lii lañ ñu naan c'est un politique génie politique parce que yow mën ngaa dal ci sa adversaire mun ngaa complot sa adversaire mun ngaa jënd sa adversaire wëlbati ko ba suy waxati doo xam lu muy wax lu mu doon loolu mooy génie politique ñun on a besoin de génie d'État koo xam ne bu ñu la jënkee réew nga defar réew mi waaye soxla ñu ay génie politique génie politique mooy lañ la dénk nga liggéey ko ba Sénégalais yi soo ne woon sama deuxième mandat jeex na maa ngi dem ñu ne la bàyyiwuñ la parce que résultat nga def waaye jël doole bi ñu la jox rek di dal ci kaw nit ñi neuf de Macky Sall li fi am mosul am ci Sénégal ñaata adversaire la tëj ñaata adversaire la faagagal loolu ba kañ loolu nag lañu mën a tur nangooti te te nag lii mu def dañ koy tuddee ci tubaab ot traison haute trahison mooy wor bi gën a rëy ci wor yi mën a am ndax moom biñ ko falee dafa dafa teg loxoom ci suñu constitution daal waat ne waat naa ni dinaa respecter constitution bi lii mu def du respecter constitution bi. nekk au service des sénégalais lii mu def du nekk au service des sénégalais ku dem ba yow dong nga wéet ak sa peuple nga wéet yow kundum fi nga nekk ak sa juróomi nit sa peuple nekk en face de toit nga am sañ-sañu yónni sa ministre bu immature mu ne peuple boobu yëpp ay terroriste lañu peuple boobu yëpp dafa am ay intérêt yu ne seen gannaaw di leen financé ndaw ñii dañoo mës a gis ku leen financé taxaw saaga sa peuple ñëpp ñëpp wéet yow dong sa pale tey soo demee ville soo ko fekkee foofu moom dong ak palem cundum peuple bi yëpp nekk fii su dul woon militaire ak armée bu nekk suñu diggante tey jii kenn du kenn du kenn du kenn ay ay ay bagages am dañ koy fol loolu foog ngeen mooy haute trahison parce que liñ ko joxoon ci ay moyens du woon pour muy comploter contre des adversaires politiques dama wax tey ñu ne ma contrôle judiciaire waratoo wax ci dossier bi ma ne juge bi bu ngeen ci waxee ma wax ci ndax saa su ne dossier amoon na fi dossier Khalifa Sall gis nañ ko dossier Karim wax na su ngeen dégloo nit à à huit heures à neuf heures yéen a koy jox seen seen seen benn journaliste mu ne les secrets de l'audition su ngeen ci waxee dinaa ci wax ndax man kenn du ma tënk waaye damay gaaral sénégalais yi wallaahi dama ko waat wallaahi lañ ma tuumal bu amoon duma nangu benn sénégalais am xoosu xoosu waxuma laa bakkan di ci ron parce que bu boobaa du ma yem ci lañ ma def rek kese mais damay doon criminel kon ñii fi faatu tey yépp man maa leen faat loolu duma ko nangu sama kanam borom responsabilité Macky Sall la ak comploteur am ba tax nag ñu ne ab président de la république am na loo xam ne du sa sañ-sañ amul président de la république boo xam ne war naa féewale peuple di boole nit ñi ñu jàmmarloo di xuloo walla di xeex amul président de boo xam ne war naa gouverner ci ci li tubaab bi wax haine ci soxor ci bañ nit parce que àndul ak yow rek nee na d'accord ak yow nga ne kii tey ma faagaagal ko loolu du président la République te ñun ñëpp nag ñu war ko cee bañ a jàppale parce que discours de la haine léegi lay doog a am Sénégal tey de laay doog a dégg Sénégal ñu tudd ethnie nit waasoo nit ci politique. wala ñu tudd gëm-gëmam ci politique loolu ñun ñëpp kenn waru koo d'accord te di ci woo ñëpp nag ba ci booleem média yi ñun ñëpp dañu góorgóorlu opposition de programme de projet d'idée d'accord mais def ay programme semaine bu ne ay nit ñëw taxaw di saaga nit di xas nit di ŋàññ nit di wax ci ñoom moom loo xam ne du dëgg suba du dugg ngoon mu yor njaboot yor ay nit yu ko bëgg yor ay militant loolu mooy taaw réew nañu delloo si suñu xel mbir mi sottante xalaat la opposition d'idée de programme la waaye du opposition personnel ke kenn ku nekk deram rek la am waaye xëy suba ba ngoon jot di wax ci nit di wax ci nit di wax ci nit tam ko dëmm wax ci mbokkam wax ci way waajuram loolu amu fi woon ci Senghor amu fi woon ci Abdou Diouf amu fi woon ci Abdoulaye Wade mi ngi fii doog te dafa war a dakk Macky Sall moomul réew mi ñun ñëpp ñoo waral jël suñu responsabilité te lii defe naa buñ ci génnee dina doon leçon pour ñun ñëpp parce que maa ngi seetaan programme yi je vois moins d'arrogance ñenn ñi sax ñëwetuñu dem plateau waaye suñu demee plateau dañuy wax wax ju sedd est-ce que waroon nañu toog ba egsi fii gouvernance de l'arrogance xëy suba ba ngoon jot di saaga nit ñi loolu ñun ñëpp war nañ cee jël ay jàngat. ki ñu dénk réew ñii nga xam ne ñooy say takk der nga xam ne kaaraange société bi moo leen tax a jóg war warloo leen mettre ci benn situation bi parce que takk der yi ma gis ñoo gën a am lu leen naqari fi mu toll nii ndax xam nañu ki ñuy dóor seen rakk la xam nañu ki ñuy gaañ seen rakk la koo ci wéetal xolam seddul ku ñu jox réew war ngaa moytu loolu war ngaa moytu banqaas yi nga xam ne ci nga toog mu nga mettre leen ci ay situation yoo xam ne ñoom seen bopp dootuñu bëgg dara ci liggéey bi may rendre hommage nag gendarmerie nationale ci seen professionnalisme ci seen sens de la responsabilité ak seen hauteur man dama leen mujj naw gene bés bu ñu may jàpp ba tey bi ñu may déposé fi ma dem noppalu ji seen loxo laa nekk brigade de recherche nous avons une très grande gendarmerie ngelawaay bu ñu caaxaane suñuy institution des professionnels ñu respecter ordre mais sans zèle sans brutaliser kenn mësuma sax bëmëx kenn mësuma xoos kon ñooñu ku am lu mel noonu àdduna bi yëpp ñeeñu ko ngelawaay Macky Sall bul yàq suñu réew gendarme boobu gaañu barki démb ci ñi ma yoroon la 12 GIGN yi ma yoroon la di professionnel bu mag a mag a mag un patriote une fierté pour le Sénégal ñeewante bi mu amoon ci ñi mu doon sànni grenade bi moo tax mu téyewaat ko hésitation boobu moo yàq loxoom tey kon yooyu dañ ciy bàyyi xel te gëm naa ni ni mu amee ci gendarmerie la amee ci yeneen corps kon politicien yi bu ñu yàq suñu diggante ñun biir sénégalais waaye suñu diggante ak suñuy institution rawatina gendarmerie armée police ak keneen ak keneen di wax tamit nii Macky Sall dafa trahir le peuple sénégalais Macky Sall mooy le seul responsable de lii xew nii ci réew mi te responsabilité boobu duñ ko bàyyi mu njaas Macky Sall amul légitimité pour jiite Sénégal tey jii amu ko amu ko woon démb tey doog a ñëw ndax man bokk naa ci candidat yi nga xam ne bi ñu génnee 2019 maa waxoon candidat ñeenti candidat opposition yi ne leen position de principe du ne génn nañu génne xale yi ñu xeex de waaye position de principe mooy duñ ko reconnaître amul légitimité il est le président légal waaye du président légitime defe naa mel nu man ci ñeenti candidat yi maa yor position boobu ba léegi mosoo leen ma dégg ma ne ko président Macky Sall Macky Sall laa ko wax parce que légitimul dafa mbuxum élection yi légitimité boobu nag li ci desoon lu tuuti su doon des na moo fi nekkatul kon suñu newoon ci yenn situation yi Macky Sall dañ ko war a wàcce tey jii su ñu nekkoon ci yenn situation yi waaye foofu nag laa bëgg askan wi déglu ma nañu déglante bu baax a baax a baax parce que loo gis rek tey ak daal daf cee baax benn bu kenn dem pale génne Macky Sall ne day wàcc par force parce que loolu baaxul ci démocratie fi mu mën a jëme réew mi du baax moom bu xoolee boppam ba xam ni amatul légitimité pour jiite Sénégal mu ne jóg naa man démissionné na askan wi yëpp jóg tàccu ñu préparer suñu élection anticipée ñi war a dem dem jàmmarloo waaye bu ko deful nañu ko gunge ba mandaam jeex waaye bu kenn dem ne dañu koy wàcce ñaareel bi yenn boroom xam-xam yaa ngi wax déjà gouvernement d'union national ñun de sama bopp laa mën a waxal ak ñi ma àndal bokkuñu jegewuñu benn xeetu gouvernement bu Macky Sall parce que dañ koo nawloo wut ba war a mën a ànd ak moom ci gouvernement parce que koo dem ba ni def na haute mënatoo wëlbati ku ànd ak moom ci ay gouvernement léegi nag mu des fi ma bëgg a waxtaan ak Sénégalais yi révolution bi am na ba noppi kenn mënatu koo arrêté bu ñu ne woon compet Ousmane Sonko yóbbu wala ñu def ko Decroix ñu def ko Cheikh Tidiane Dièye wala Khalifa Sall wala ku munti doon du tee lii ma gis ñii ci ndaw ñi kenn mënatu ko arrêté la révolution ya en marche te gën gën see gudd 2024 ñu mortali ko la ca des mooy nañu bañ def erreur yi nga xam ne réewu Afrique yu bëri def nañ ko mooy dañuy conduire seen révolution ba dégg ci cappaandaw bi mu am ñu ñëw ne ko coppet rawatina nag armée parce que réew am na fu muy toll armée day jël mbir mi te ñaare armée day am ay puissance yu bokkul fii yoo xam ne dañuy jël seen i nit préparer leen pour ñoo ñu jël réew mi bu ñu sàgganee ba armée jël réew mi lépp lu ñu doon yóotu ak di ko préparer dañ ko ñàkk moo tax ma ne nañu bu ñu syndrome malien baa ngi fii keroog bu ñu defee seen révolution bay waaj a yegg ñu ne armée génn na ñu ñu topp ci char de combat yi di tàccu laa ne mbir mi jeex na ñàkk nañ ko noonu la amee feneen ak feneen ak feneen moo tax révolution bi am na ba noppi Macky Sall mënatu koo téye kenn mënu koo téye kon nañ ko encadrer parce que stratégie dafa baax ci lu ne du lépp nag la ñuy wax ci télé waaye suñu responsabilité ñun ñëpp askan bi mooy nañ ko encadrer ba yegg fi ñu bëgg a yem waaye nag. teewul loolu tekkiwul nag nii dañoo firi Macky Sall rek di ko seetaan nañ koy encadrer mooy dañuy exiger imposer benn agenda à partir d'aujourd'hui parce que loolu la peuple bi bëgg te peuple bi mooy imposer le rapport de force kenn ci ñun mënul imposer rapport de force isolément ñun ñëpp suñu dajaloon suñu parti mënuñu ko peuple bi moo mën a exiger imposer rapport de force rapport de force boobu nag bokk na ci benn lu ñuy exiger la lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu ñaan Macky Sall de amul layam-layam yi lu ñu exiger Macky Sall la bu ci njëkk mooy ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi te muy responsabilité moom Macky nañu jox ndàmpaay seen waa famille mënul mënul tax ñu ñu ñu ñu rattraper li ñu ñàkk waaye loolu le minimum la ñu bañ a gore di ba mel ni moom ndax moom bi nit ñi xeexee 2011 ba ay bakkan rot ci bi mu toogee ci nguur gi da leen a fàtte ñenn ñi sax commencé ñaxtu ñu tëj leen kaso ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci exigence Macky Sall ak état du Sénégal dañu war a jox ndàmpaay seeni famille ñaareel bi mooy ñi ci gaañu dañ leen war a jox indemnité civile et militaire nag laa wax dañ leen war a jox ay indemnité jàppale leen ñu mën a faju ci nu mu gën a ba rafetee ñaareel bi du lu ñuy ñaan Macky Sall tamit mooy prisonnier politique yi mu jàpp na leen libérer immédiatement et sans condition immédiatement et sans condition te nag premier point bi ma njëkk a wax gannaaw bu ñu nee réparation ñu ngi exiger ñu ubbi une enquête indépendante parce que faut ñu xam kan moo tiire ak kan moo rey ay affaire u Balla Gaye jaar na fi leneen ak leneen ba léegi kenn xamul lu xew ak kan la loolu tax nit ñi di am fit defaat enquête indépendante ñuy wax nag ni dép ñu ngi déposer une plainte auprès de la cour pénale internationale parce que lii c'est des crimes contre l'humanité te ci nguuru Macky Sall la xewee fii Sénégal ñetteel bi mooy bis ni ki tey dootuñu nangu Macky Sall di persécuter les opposants ak les honnêtes citoyens di leen espionner di leen mettre sur écoute la terreur va changer de camp dootuñu ko nangul Macky Sall yooyu il faut mu jeex tey démb dégg ngeen gendarme bu démissionné parce que def na liggéeyam ni mu ko war a defee ñu envoyé ko ay police ñu koy espionné suba ak ngoon Macky moom lan la ñu teg wala moom mooy Sénégal loolu dina dakk bis tey ñaareel bi mooy ñi nga xam ne ay milices la yu mu jël moom ay sambabo yi ñu jël jox leen xaalis. ñor ay jaasi ak ay fetal di di di fit nit ñi exigence nañ leen a identifier jàpp leen livrer leen à la justice ñu àtte leen ñoom ak ñi leen yónni nag ñoom ak seen commanditaire juróomeel bi mooy Macky Sall bëgg na ko bañ na ko dina créer les conditions pour ñu mën a dem ci ay élections ni mu gën a leere ay wuruj fichier électoral jeex na ci Sénégal yor say carte d'identité ne du ko jox ndaw ñi parce que ànduñoo ak man jeex na ci Sénégal Macky Sall dina créer les conditions yu ñu mënee demee ci élection xam ne ñépp lay tolloole ku peuple bi tànn ñu ne kii la juróom-benneel bi mooy ci ni mu gën a gaawee il faut ñu organiser élection yi ci élection locale sénégalais yi tànn seeni maire parce que maire yoo xam ne seen mandat léegi mu def 10 ans kenn mënatu koo nangu dina organiser élection législative en 2022 sénégalais yi tànn seen député jox seen bopp assemblée bi ñu bëgg waaye dina organiser 2024 élection présidentielle ci ni mu gën a rafetee lii lenn rek moo mën a doon exception mooy mu dem ba xam ni moom dirigeetul Sénégal amatul légitime Sénégal mu ne démissionné naa ñu def élection anticipée waaye duñ ko may benn report mu toog naan may buum maay bumi maay seet kañ laa kañ laa koy def ak nu ma koy defee kooku moom jeex na Sénégal euh, juróom-ñaareel bi mooy na delloo ñi mu xañ seen droit civique benn ci Khalifa Ababacar Sall bii ñaar ci Karim Wade parce que loo xam ne yëkkati nga ko dem ba juridiction internationale ñu ne la jaarul yoon nga ne damay jaay doole kooku du nekk candidat ci réew mi loolu suñ ko seetaanee ëllëg ci man la ñëw gannaaw suba ci keneen lay dem dootu fi nangu élection lu dul ko ku fi war a nekk candidat nga war a nekk candidat Sénégalais yi seet ku leen doy ñu tànn ko waaye Macky Sall mooy tànn kuy candidat ku dul candidat loolu jeex na Sénégal juróom-ñeenteel bi wala juróom bi. mooy moom Macky Sall na taxaw jàkkaarloog sénégalais yépp amul mon bon vouloir wala nii wii nii non fii non rek moo fi am na jàkkaarlook sénégalais yépp ne troisième sax dootuma ko tudd wax ma la mandat amu ci droit te peuple bi nee na amu ci droit peuple bi nee na deuxième mandat sax doyal nañu waaye nekk républicain moo tax dinañ ko bàyyi mu yeggali kon bu mu fi taxawati naan ay nii wii nii noo ak yu demee jeex na mille 2024 Macky Sall n'est pas candidat au Sénégal bu amee beneen république bu mu am nag mën dafa dem nekki candidat lii lépp nag dafa am lu mu àndal dafa am lu mu ànd ak mooy li may ñaan le peuple particulièrement les jeunes bu mobilisation bi wàññeeku mukk nag tey lañu war a gën a mobiliser wu chacun et chacune kenn ku ne ci ñun am na sañ-sañu jëfandikoo àqam bi nga xam ne constitution moo ko may ni man duma nangu ku ma noot loolu ngeen def tey jii loolu ngeen def fan yi yëpp weesu nañu continuer mobilisation boobu waaye na doon mobilisation pacifique parce que dafa am lu Macky Sall foqati woon ci ñun mooy kenn amatul woon sañ-sañu def rassemblement wala nga def marche tey wan nañ ko ni ci par force dinañ ko def parce que constitution moo ñu ko may te keroog bi mu ñu koy may dafa ne déclaration ngay def am amul autorisation déclaration la balaa may dee ñu ne marche non autorisée France mun a bàyyi nit ñi ñu manifester Canada mun koo bàyyi keneen ak keneen Turquie yow fi nga dëkk Sénégal ñu ne doo fi manifester parce que son excellence. Macky deuxième nee na kenn du fi manifester loolu jeex na ci Sénégal may proposé ñu continuer manifestation yi jël benn fan wala ñaar ci semaine bi un million de sénégalais nañu génn yor seen drapeau national xool fu ñuy dem fu ñu koy defee dem taxaw fa exiger que lii ma wax neuf mesures yi ak yeneen yoo xam ne après concertation dina ci yokku Macky Sall da koy respecter walla dootul am jàmm ci réew mi. su amee kuy tiit désormais Macky Sall lay doon waaye dootul dootul doon ñun loolu jeex na ci réew mi may wax nag gannaaw bi ma waxee li jëm ci Macky Sall may lancer un appel ñun ñi ñëpp nag di acteur politique askan wi mérité na des acteurs politiques qui soient à leur ñun ñëpp amatuñu droit yenn yi nañu sargal askan wi nañu delloo politique sa noblesse nañu jël engagement ñun ñëpp war ko ni peuple bi rek moo ñu ñor kenn new fi di politique pour xaalis booy am ku bëgg ay milliards uti ko feneen waaye politique servir ton peuple la yaa ciy sonn dépenser si ñàkk ci ba dee waaye waroo ku foog ni ci milliards ci politique ngay amee milliards ndax nga sa bopp loolu dafa war a dàkk senegal mën nañu am ay projets yu wuute mën nañu am gis-gis yu wuute waaye ñun ñëpp nañu bokk bëgg réew mi nañu bëgg réew mi jaay intérêt réew mi li Macky Sall def dafi war a dàkk suñu ressource naturelle nga jaay suñu marché public nga jaay lu la neex nga def loolu jeex na ci senegal kon dama bëgg ñu nit peuple bi waruñoo gën a gore man de man Ousmane Sonko je ne mérite pas ce peuple-là je mérite pas gisuma lan laa def ba peuple li war a daj lii mu daj ci ñun kon ñu nit nañu jël engagement solennel ni ni ki tey un nouveau départ la ñu jël parce que réew mi yomb naa defar de te peuple bi amatul droit un troisième ou un quatrième départ bii pas ça doit bon départ su dee nag dañuy ŋàññi ñi fi ne ba jëlee leen fi ñëw def la ñu defoon wala lu ko yées defe naa bu au bout du compte peuple bi mooy mujj génn ci ñun ñëpp. kon loolu ci lu jëm ci ñun la ngelawaay nañ ci góorgóorlu ma yokk ci benn poñ la ma ciy waxtaan bëri na trop waaye dafa fekk li tubaab di wax machiavélisme ñu bëgg a utiliser yenn yi. à des fins strictement politiques may sànni ay kàddu jëmale ko ci Casamance une dernière fois samay mbokk lay waxal wala lenn ci samay mbokk ndax yàlla may na ma bokk fépp ak lu nit mënoon jàpp ba tax nga jël ngàndaay dugg ci àll bi jàpp ni dañ laa xeeb jàpp ni dañ laa boolewul jàpp ni citoyen de seconde zone nga boo xoolee li xew tey ci senegal di xam ni loolu amut ndax gannaaw bu ma doonee doomu Sénégal doomu Casamance la waaye ñii ñëpp jóg taxaw muy Touba muy Ndar muy Fuuta muy Bakel muy kenn se Cees ak feneen ak feneen jóg taxaw seetuñu kii fu mu bokk dañu ne dëgg jot na nañu xeex dëgg kon li ma leen ñaan mooy ci 6 mois yii juróom benn weer yi li ma ñaan samay mbokk ci Casamance ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg génn ci àll bi ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg sans condition génn ñu bokk ndey bokk bàyyi parce que ñun ñëpp sénégalais lañ ñun ñëpp africain lañu gannaaw ga ngeen ànd ak suñu armée fépp fu miin nekkoon ngeen wane carte yi ñu génne miin yi génne ndël yi sauver population yi bu ñu nangooti ñu ne dañ koy régler par la voie militaire parce que kii tiire ak ki muy tiire ñoom ñëpp doomu Sénégal lañu ñun ñëpp benn lañu kon loolu muy appel boo xam ne maa ngi koy lancé parce que lu ma ñor a ñor la te boo seetee li xew Sénégal tey li nga xam ni Sénégal yëpp wane na ñun ñëpp benn bopp lañu kon lii lañu bëggoon sànni ci kàddu yu gàtt euh, di wax tamit ni ci li jëm ci mbir mi nee nañu contrôle judiciaire la man nag acteur politique la sama indépendance politique kenn du ma ko xañ loolu moom mayuma ko kenn ñaareel bi ñun musuñoo daw justice combat de principe mooy li suñuy àq ak li yoon wax ni lii la nañ ko jaarale foofu ba tey jaarewuñ ko foofu te danañ ko continuer xeex ndax suñuy avocat ñi ngi def recours yi waaye bëgg nañu ci ni ma gën a gaawee ci nu ma gën a gaawee ñu dem ci procès ba ni mu gën a gaawee bu boobaa yooxu dina jib fuñ ko foogewul woon may remercier it euh, euh, ci présence su daam yi parce que tudduma góor ñi waaye bés bi bésu jigéen ñi la mm-hmm. madame la ministre Aminata Lo Dieng di ko remercier bu baax ci présence am ak ci taxawaayam ci combat bi ndax ci bi mbir mi commencé rek la daw si kër ga donc je vais récapituler plus brièvement en français Euh, je crois qu'on peut euh, passer sur la minute de silence. Commencer par remercier tous nos guides religieux et coutumiers. Pour une fois, le rôle de stabilisateur et de médiateur qu'ils ne cessent de jouer. Lorsque nous, hommes politiques, avons fini de mettre le feu au poudre. Les remercier parce que je sais que depuis le début de cette affaire, ils n'ont cessé d'intervenir. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal avec ses spécificités. Et c'est une grande chance pour le pays. Féliciter, encourager et remercier toutes les femmes qui ont pris part à ce combat, puisqu'on est dans la journée du mars. Et dire aux Sénégalais que j'ai le cœur lourd. Depuis quelques jours, mon sommeil se trouve très perturbé. non pas par l'affaire en question, parce qu'elle me reste de marbre, mais parce qu'il y a eu trop de dégâts, trop de victimes, trop de meurtres, puisqu'il s'agit de meurtres, d'assassinats, trop de blessés, trop de personnes faites prisonnières, trop de familles éprouvées, et évidemment, nous nous sentons plus ou moins redevables de tous ces gens-là qui ont pris sur eux de mener ce combat. J'ai dit tantôt, je me suis permis de lire la liste. Nous avons aujourd'hui 10 cas confirmés de personnes qui ont été lâchement assassinées et dont Macky porte la responsabilité de leur assassinat. Plus 4 autres ou 5 autres personnes qui restent à être, à, à personnes 10 meurtres au Sénégal, c'est trop. Nous sommes un pays apaisé, un pays qui n'a pas une tradition de violence, un pays connu mondialement pour son climat fait de stabilité, de fraternité, de convivialité. Mais le seul qui porte la responsabilité de toute cette situation s'appelle monsieur Macky Sall. Qu'est-ce qui nous a amené à cette situation Je résumerai simplement par la cupidité, la boulimie de pouvoir d'un homme qui ne connaît que le complot contre ses opposants, adoubé par une cour de laudateurs dont les plus en vue sont ses quatre affidés, son ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diom, son ministre de la Justice, Malik Sall, son procureur, Serigne Bassirou Gueye voilà le quatuor qui a pris le Sénégal en otage et qui nous a menés à cette situation catastrophique que de mémoire d'hommes on n'a jamais vécu dans ce pays jamais beaucoup de crises ont été traversées des crises politiques jamais on en a vécu une comme celle-là c'est d'autant plus grave que l'avènement de Macky avait suscité un grand espoir de la part de tous les Sénégalais avec un, une kyrielle de promesses, les unes plus mirobolantes que les autres, sur la restauration de l'état de droit, sur euh, la démocratie, sur la bonne gouvernance, sur euh, la patrie avant le parti, toutes choses qui se sont envolées dès les premières heures de gouvernance de l'homme Macky Sall. Nous sommes tous quelque part responsables, particulièrement cette frange de Sénégalais qui voit en Macky Sall un génie politique, lequel génie consiste à des qualités ou des capacités à comploter contre ses adversaires, à emprisonner des adversaires politiques, à liquider des adversaires politiques, à corrompre et retourner des adversaires politiques, à faire chanter des adversaires politiques. Certains sont devenus méconnaissables. Les gens pensent que c'est des deals politiques. il n'en est absolument rien, c'est qu'aujourd'hui, Macky Sall les tient par des moyens que nous connaissons bien. C'est ça le génie politique de Macky Sall. Piètre génie s'il en est. Nous devons savoir qu'un pays ne se construit pas sur cette base. Ce qu'on attend d'un homme politique, c'est d'être un génie d'État. C'est de mettre tous les moyens qui ont été mis à sa disposition au service de la réalisation de résultats pour le bénéfice exclusif du peuple. Le peuple veut manger à sa faim. Le peuple veut des écoles de qualité. Le peuple veut des infrastructures. Le peuple veut vivre en liberté. Le peuple veut que sa démocratie progresse. C'est ça qu'on attend d'un chef d'État. Mais ce pas de passer tout son temps à mettre des milliards pour payer des laboratoires qui fomentent des coups fourrés contre les opposants. Cela relève plutôt de la haute trahison, puisque Macky a juré sur la Constitution, de respecter et de faire respecter cette Constitution et les lois du pays. Il a juré de protéger les Sénégalais et de travailler à leur bonheur. S'il fait exactement le contraire, si Macky Sall trouve le temps de fomenter des complots sordides, ce monsieur aura trahi le Sénégal, aura trahi le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi nous disons qu'un président n'a pas le droit d'opposer son peuple les uns contre les autres. Nous n'avons pas élu Macky pour cela. Un président n'a pas le droit de gouverner par la haine, l'arrogance et la rancœur. Et c'est le style de gouvernement de Macky Sall. Et malheureusement, il a même entraîné euh, une frange du pays dans ce, dans ce sillage. Nous devons tous faire notre introspection. revoir notre façon de communiquer, revoir ce qui se dit sur les plateaux de télévision et de radio. Jamais dans l'histoire du Sénégal, le discours n'a été aussi musclé, aussi vindicatif, aussi haineux. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on a évoqué les questions aussi sensibles que la religion, l'ethnie, l'appartenance régionale. C'est sous Macky Sall que c'est arrivé. Jamais dans, au Sénégal, on a eu des programmes spécifiquement et spécialement montés pour casser du sucre sur tel opposant, euh, médire sur tel opposant et raconter n'importe quoi du matin au soir. Nous devons tous faire notre introspection parce que cela a brûlé des pays et vous savez très bien qu'on n'en est pas très loin. Ressaisissons-nous pendant qu'il est temps. La politique, c'est l'opposition des idées et des opinions. La politique, c'est l'opposition des programmes, mais la politique, de l'opposition personnelle, crypto-personnelle. Aucun président n'a le droit, digne de ce nom, n'a le droit de mettre nos forces de défense et de sécurité dans la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui. Je peux jurer que ces forces de défense et de sécurité sont plus meurtries que les manifestants même de la situation qu'ils vivent. Parce que c'est des Sénégalais qui rentreront tous les jours auprès de leur famille, de leur belle famille, peut-être où il y a eu un blessé ou un emprisonné ou même un tué. Et ils, elles n'ont pas été, elles ne sont pas rémunérées par le peuple sénégalais pour gérer le service après-vente des complots de Macky Sall. C'est dommage et c'est déplorable. Et vous me permettrez de rendre un hommage également à ces forces de défense et de sécurité. Je dis au peuple sénégalais que j'ai été agréablement séduit par notre gendarmerie nationale. nous avons une grande gendarmerie nationale, une énorme gendarmerie nationale. J'ai été si bien séduit par les éléments de GIGN qui ont assuré ma sécurité. Ils ont plus assuré ma sécurité qu'ils qu'ils ne m'ont arrêté. Du jour où j'étais interpellé le mercredi au jour d'aujourd'hui, en respectant scrupuleusement les ordres, mais sans brutalité, sans zèle et sans animosité. J'ai été si bien séduit qu'avant-hier, lorsque mon fils est venu me visite à la brigade de recherche, je lui ai dit, Mohamed, prépare tu vas, faire le concours pour être Je rends hommage à ces, patriotes que nous pouvons apprécier de loin, d'un regard qui n'est pas forcément ce regard-là. Tout ceci m'amène à dire cela. Macky ayant trahi le peuple sénégalais, ayant trahi son serment, Macky Sall n'est plus légitime à diriger le Sénégal. Il ne l'a jamais été depuis son, le début de son deuxième mandat. Je fais partie des quatre candidats qui s'étaient réunis et qui ont signé un protocole pour dire qu'on lui dénie toute légitimité. Et je crois être le seul qui campe encore sur cette position. Et aujourd'hui, il y a circonstances aggravantes. Si on était dans d'autres circonstances, le peuple aurait dû marcher sur le palais et sortir Macky de force. Mais je le déconseille fortement. Nous le déconseillons fortement. Je crois pouvoir parler au nom de tous ceux qui sont assis Mais je crois pouvoir parler à, au nom de tout le peuple sénégalais, qui est un peuple sensé, un peuple équilibré et un peuple mesuré. Si Macky tire les conséquences de son échec. Parce qu'aujourd'hui, il est seul bunkérisé dans son palais face à 16 millions de Sénégalais. Et n'eût les forces de l'ordre qui font tampon et même l'armée maintenant, je crois que la messe aurait été dite depuis longtemps. Si Macky en tire les conséquences, et j'espère qu'il le fera tout à l'heure à 20 prononce sa démission, nous en prendrons tous acte et la Constitution sera appliquée pour organiser les élections dans les délais prévus. Je tiens à dire d'emblée que pour ces voix qui s'élèvent déjà, pour dire que puisque Macky Sall n'a plus cette légitimité-là, nous devons aller vers un gouvernement d'union nationale, que nous ne sommes intéressés par aucun gouvernement avec M. Macky Nous ne pouvons pas être dans un gouvernement d'un président légal, illégitime et qui a trahi son peuple. Nous ne le serons jamais. Par contre, nous disons au peuple sénégalais que nous devons faire preuve de maturité. Beaucoup de révolutions se sont tenues en Afrique ces dernières années. Mais au finish, l'aboutissement n'a pas été ce que le peuple attendait. Parce que, en voulant court que court procéder par radicalisme, Nous avons ouvert la boîte au Pandore où c'est l'armée, souvent avec des éléments préparés par des puissances occultes, qui hérite du pouvoir et qui remet en cause tous les acquis démocratiques. Et nous, avons, nous voyons ce qui se passe dans un pays voisin où le, le, le peuple a mené toute sa révolution au point de faire tomber le président et l'armée est intervenue, a été acclamée par le peuple, mais nous voyons ce qui s'en est suivi. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Soyons tactiques et intelligents. La révolution est déjà lancée, rien ni personne ne peut l'arrêter. Aucune puissance interne ou externe ne peut plus l'arrêter. Le peuple a pris sa responsabilité et a compris les enjeux. Conduisons cette révolution à son terme, c'est-à-dire au plus tard 2024. C'est un peu plus de deux ans et demi. Conduisons cette révolution à son terme intelligemment. Cela ne, va, pas dire pour autant que nous allons refaire tomber la ferveur et que Macky aura un blanc-seing. Nous devons encadrer cela. Et c'est en cela que nous pensons que nous devons aujourd'hui imposer un agenda à Macky parce que le rapport de force nous le permet. Ce pas à Macky désormais de dicter quoi que ce soit dans ce pays. La première chose qu'on doit lui imposer, c'est la réparation pour les familles des victimes. Tous ceux qui ont été assassinés, l'État du Sénégal doit procéder à euh, une réparation, en tout cas forcément pécuniaire, pour au moins adoucir ou amoindrir la peine de leur famille. De la même manière, nous exigeons l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités identifier les auteurs et les traduire en justice. D'ores et déjà, une plainte sera déposée auprès de la Cour pénale internationale parce qu'il s'agit de crimes contre l'humanité et ça s'est passé sous le régime de Macky Sall. Nous devons également exiger la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques de Macky Sall. Il y en a plus d'une centaine emprisonnés un peu partout dans le pays dont la plupart ont été kidnappés pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations, avec des méthodes que j'ai qualifiées de fascistes et euh, qu'on n'a jamais vues en tout cas. Il faut qu'on mette un terme à cela et nous exigeons la libération immédiate de ces prisonniers politiques. De même que l'indemnisation des blessés, civils comme militaires. Nous exigeons que toutes les mesures soient prises pour, pour arrêter à jamais la persécution et l'espionnage des opposants et des honnêtes citoyens. Tout le monde est espionné aujourd'hui dans ce pays par Macky Sall. Tout le monde. Vous avez vu un gendarme, parce qu'il a bien fait son travail, qui a été assigné dans son camp et qui a été persécuté, surveillé, écouté, au point d'annoncer sa démission de la gendarmerie. alors qu'il n'y a aucune accointance avec moi-même euh, relativement à ce gendarme. Nous exigeons que des mesures soient prises pour traquer, arrêter et livrer à la justice les milices de Macky Sall et leurs commanditaires. Tout le monde a vu ces milices se baladant à Dakar auprès à, à, à bord de pick-up, quelquefois de départements ministériels même, et ouvrant le feu ou charcutant les manifestants à coups de machette. Nous exigeons qu'ils soient arrêtés, traduits en justice, mais qu'ils livrent également le nom de leur commanditaire. Nous exigeons qu'il soit créé les conditions de transparence, de sincérité et d'équité pour l'organisation d'élections. Depuis que Macky Sall est dans, euh, arrivé à la tête de ce pays, aucune élection ne s'est passée dans des conditions de transparence et d'équité. Depuis qu'il Cela doit cesser. Nous exigeons que les élections locales, puisque les mandats des maires sont arrivés à expiration depuis deux ans maintenant, les élections législatives prévues pour 2022 et la présidentielle de 2024 se tiennent dans les délais et avec, avec une autorité consensuelle. Parce que ce n'est pas ce ministre arrogant, incompétent, immature partisan qui peut organiser dans ce pays des élections. Nous exigeons d'ailleurs son relèvement, en tout cas euh, euh, sa, son limogeage le plus rapidement possible. Parce que les Sénégalais ne sont pas en sécurité avec un ministron qui se permet de traiter tous les Sénégalais de terroristes et euh, de représailles. Nous exigeons également la restitution des droits illégalement, inconstitutionnellement confisqués par Macky Sall. Parmi lesquels, les droits civiques de M. Khalifa Sall, maire de Dakar. Non seulement on lui a confisqué ses droits civiques, mais sa mairie. On a confisqué le suffrage populaire des Sénégalais. C'est inadmissible. Mais également de M. Karim Maïsawad, candidat du PDS, puisque même au niveau international, des décisions de justice sont intervenues pour dire que les procès qui ont été organisés par Macky Sall ont violé les droits de, de, ces, de ces derniers. Je considère, moi, qu'il n'y a pas de mérite à gagner des élections lorsqu'on s'est débrouillé pour magouiller et écarter des candidats. Une élection n'a de valeur que lorsque la compétition a été libre, démocratique et a permis aux Sénégalais de choisir librement entre les candidats qui ont des programmes. Et c'est pourquoi la présidence de Macky n'a pas de valeur. Parce qu'elle a été magouillée en écartant des candidats. Nous lui exigeons à lui, Macky de déclarer publiquement et sans ambiguïté ces histoires de ni oui ni non, c'est fini. un président qui dit ni oui ni non, ou selon mon bon vouloir. On n'est pas en monarchie que je sache. S'il a un bon vouloir, il n'a qu'à attendre d'avoir le royaume euh, ou je ne sais quoi. Excusez-moi, monsieur Hassan. Mais il n'a qu'à déclarer publiquement et sans ambiguïté. Et le peuple lui réclame qu'en il fera ses bagages et il quittera d'une manière ou d'une autre, parce que l'ultimatum que nous avons lancé en disant ne poussons pas le bouchon au point le cueillir au palais. Ce n'est valable que tant que le mandat légal, tant que le mandat légal est en cours. Quand ce mandat expirera, d'une manière ou d'une autre, comme il avait dit à son prédécesseur, nous irons le déloger au palais de la République. Je demande également, nous demandons au peuple sénégalais, particulièrement à la jeunesse, de ne pas baisser la mobilisation, de ne pas casser cette mobilisation exceptionnelle. Il faut que les, les, les, les victimes, il faut que les vies perdues aient servi à quelque chose pour que jamais cela ne se reproduise au Sénégal. Il faut garder cette mobilisation. Il faut qu'elle soit beaucoup plus importante même, mais il faut surtout qu'elle soit pacifique. Il faut qu'elle soit pacifique. Aujourd'hui, le peuple a repris son droit confisqué depuis 9 ans par Macky Sall à la manifestation. Le peuple l'a repris de force. Il ne faut pas qu'on perde cette, droit. On pro, nous vous proposerons, après concertation, peut-être deux fois par semaine, que le peuple, partout dans le pays, pas seulement à Dakar, sorte massivement et pacifiquement pour aller rejoindre une place avec des drapeaux nationaux et exiger que ces points de revendication soient rapidement satisfaits par Macky Sall et son groupe. Donc, jeunesse de nos pays, ne faiblissez pas. Ce n'est pas le moment de faiblir. maintenant la mobilisation. J'en appelle également aux forces de l'ordre et de sécurité. Quand les gens sortent pour manifester pacifiquement, limitez-vous à encadrer ces manifestations. il coûte beaucoup moins cher d'encadrer une manifestation que de la réprimer. Une seule grenade lacrymogène peut coûter, je crois, jusqu'à francs. Vous en lancez des, milliers par jour, c'est des milliards qui sont perdus. Et sans compter les dégâts humains et matériels. Donc, respecter le droit de manifester et encadrer simplement ces manifestants. Je lancerai un appel à nous autres acteurs politiques de l'opposition. Ce que le peuple a, a démontré c'est qu'il en a marre d'une certaine manière de faire de la politique. Nous avons tous la responsabilité, quel que soient nos parcours, quelles que soient nos convictions idéologiques, quels que soient nos projets politiques, nous avons la responsabilité de rassurer ce peuple sénégalais. Nous avons la responsabilité d'être à la hauteur de ce peuple, parce que ce peuple est plus digne pour le moment que la classe politique euh, qu'il devant lui. Nous avons cette responsabilité de rendre à la politique ses règles de noblesse. Mettre fin à la corruption, mettre fin à la prévarication, mettre fin au, au bradage des ressources naturelles, mettre fin à l'instrumentalisation de l'appareil d'État pour brimer les opposants ou brimer simplement euh, euh, les populations. Mettre fin à la boulimie foncière, mettre fin à tout ce qui est dénoncé aujourd'hui en termes de népotisme. Nous devons tous solennellement en l'engagement. Parce que ce peuple mérite mieux. Et nous devons tous faire pour lui donner mieux. Je terminerai simplement par lancer un appel solennel à la Casamance. Je le fais depuis quelque temps avec insistance. Parce que jamais le moment n'a été aussi opportun d'en finir avec cette crise qui a coûté trop au Sénégal et à l'Afrique, en termes de vies humaines, en termes économiques, en termes de stabilité sociale. Il faut qu'on en finisse, et ce n'est pas avec des bombardements, ce n'est pas avec la force, parce qu'on ne règle jamais une crise comme cela. J'en appelle à mes parents. Je leur dis cette mobilisation exceptionnelle de tous les Sénégalais, sans distinction, de région, de race, d'ethnie, sans distinction d'âge. Cette mobilisation exceptionnelle a fait tomber les stéréotypes, a fait tomber certaines croyances. Les Sénégalais, debout comme un seul homme, ont dit, ont émis un message au monde entier. Nous sommes tous un seul et un, peuple, sans distinction. quelles que soient les frustrations qui ont pu être à la base de votre décision de prendre les armes, quels que soient les clichés de mépris, de manque de respect ou de considération, aujourd'hui, le Sénégal tout entier vous a démontré, en se battant, non pas pour un fils de la Casamance, mais pour un Sénégalais, même originaire de la Casamance, en donnant leur vie pour un Sénégalais original de Casamance que la Casamance est une part entière, totale du Sénégal. Donc, l'appel que je lance, c'est de déposer les armes, sans condition. De le faire dans les six mois à venir. Que tout détenteur d'armes le dépose auprès de l'armée nationale. Et qu'ensemble, avec cette verte armée nationale, vous procédiez à identifier les lieux d'emplacement des mines antipersonnelles qui continuent à faire des ravages auprès des populations innocentes pour que le déménage soit fait et que le cas, la Casamance redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire ce grenier du Sénégal, mais ce grenier de l'Afrique. Je vous remercie. Je, j'en profite pour remercier la presse sénégalaise dans son ensemble qui a su se hisser à la hauteur de cet événement et traiter l'information de manière équitable. Présenter, même si je pas pu le faire en ce moment, ma compassion et ma solidarité au groupe de mon frère et ami Bougan Dani, ici présent, qui a été arbitrairement attaqué et privé de signal pendant des jours et au groupe Walfadjri de mon frère euh, Cheikh Nias qui ont vécu ou subi la vindicte d'un régime aux abois et ça a dû peut-être coûter ce que ça a coûté mais le combat démocratique le vaut en tout cas Bouga merci beaucoup à mon nom et au nom de tous ceux qui se battent pour la démocratie dans ce pays Je ne terminerai pas sans faire un plaidoyer ou une mention spéciale pour la diaspora sénégalaise. Je l'ai toujours dit, c'est la diaspora sénégalaise qui va bâtir ce pays. Nous tous avec. J'ai, depuis que politique, j'ai eu à sillonner quelques pays de la diaspora. Et j'y ai trouvé les plus grands patriotes du monde, les plus grands patriotes du Sénégal. Ils sont certes loin d'ici, mais ils sont scotchés sur l'actualité nationale. Très engagés pour une rupture définitive. Pour que ce qu'ils vivent là où ils sont, nous, pouvons, nous puissions avoir mieux dans ce pays qu'est le Je vous remercie au nom de tous les patriotes de ce pays, au nom de tous ceux qui se qui se battent pour la démocratie. Je vous remercie au nom de la jeunesse sénégalaise. Merci à la diaspora. Merci à la presse nationale comme internationale. Euh, je m'excuse s'il y a eu la ratés, mais vous comprendrez que c'est la fatigue. Et nous, je crois qu'avec tout le front, vous aurez les développements ultérieurement sur euh, le plan d'action et sur les exigences améliorées, parce que désormais, le peuple a décidé de prendre ses responsabilités. Je vous remercie. voilà mbokk yi mu ngi noonu euh, conférence de presse bi nga xam ne déclaration bi nga xam ne euh, njiital Pastef di président Ousmane sonk daal dina koy def gannaaw rek bi ñu ko euh, accordé benn bi ñu ko placé su contrôle judiciaire moom nag nu mu tàmbalee ay kàddoom mooy amul benn faveur boo xam ne daal dina koy bénéficier ci justice li waral. ñu libéré ko tey mooy pression bi nga xam ne euh, askanu Sénégal daal dina koy def ci kaw justice bi nga xam ne moom Ousmane ko jàpp na ne amul benn procédure bu jaar yoon boo xam ne daal dina koy doxal euh, ci dossier bi nga xam ne si nañ ko accusé wàllu euh, yàkkataan ak wàllu menace de mort moom Ousmane Sonko nag daal di tàmbalee rek daal di ñaanal ñi nga xam ne daal di nañu ñàkk seen bakkan ci manifestation yi daal di ma masaw itam ñi nga xam ne dañu cee gaañule waaye itam Euh, daal di euh, rek euh, ñaan wala boog exiger ci njiitu réew mi mu daal di ndàmp ñooñu nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan maanaam seen i njaboot waaye itam ñi nga xam ne dañu fee am ay gaañu gaañu mu daal di leen ndàmp ba ñu mën a fajoog jàmm ñii nga xam ne dañoo gaañu nekk ay civil itam ñi nga xam ne dañoo gaañu itam nekk ay force de l'ordre moom Ousmane Sonko nag daal di nay Euh, euh, wax rek ne euh, kii di njiitu réew mi Macky Sall nga xam ne askanu Sénégal daf koo dénk li nga xam ne mooy poste président de la République daal di koy dénk ay mission ngir mu mën koo doxal ngir taxawu ko ci ay fànn yu bëri bëri moom Macky Sall moom moo dafa rek daal di jël doole googu nga xam ne moom la ko askan wi jox ngir rek daal di koy delloo ci kawam di di leen noot waaye itam di noot ñi nga xam ne ñooy opposant politique yi nga xam ne dañoo jóg rek ngir jàkkaarloo ak moom ndax moom Macky Sall Ousmane Sonko nee na moom Macky Sall amul benn adversaire adversaire politique boo xam ne fas yéene na jàkkaarloo ak moom euh, jàkkaarloo ak moom waaye xam le na également ni euh, ci atum mille 2024 euh, moom moom euh, Macky Sall ci lay jeexal fii ci nguur gi euh, ndax ñaareelu mandaam lay doxal muy mujjanteelu ko mandaam ci bopp réewum Sénégal daal na xam ne également ni lépp loo xam ne wàllu élection la muy élection législative yi daal ñu ko amal ci atum 2022 te du am benn report boo xam ne askanu Sénégal dina ko nangu waaye itam li nga xam ne mooy élection présidentielle li nga xam ne daal nañ koy jàpp fii ak atum 2024 du am benn report wala benn benk ñenk boo xam ne Macky Sall dina ñëw teg ko fi ngir daal di reporté élection yooyu naan ñaan nag euh, askan wi ndax gis ngeen euh, balaa rek euh, janoom ak. Euh, juge du premier cabinet muy doyen des juges euh, Massamba Sall euh, askanu Sénégal ci internet bi daal dinañu réclamer li nga xam ne mooy démission Macky dal daal dinañ xam ne ne dinañu dem ca pale ba daal di génne Macky Sall waaye Ousmane Sonko moom nee na àndul ci loolu ndax la ko gën a ñor mooy wàllu démocratie moo tax mu ñaan askanu Sénégal ñu mayandi ki nga xam ne mooy président Macky Sall mu dem ba 2024 bu ko defee 2024 mu daal di ñuy abal waaye itam xam le na ni moom président président Macky Sall duñ ko bàyyeeti ci benn yoon muy doxal na mu ko neexee ci bopp nguuru Sénégal ndax askanu Sénégal ñoo ko dénk te warul dox ci lenn lu dul li nga xam ne moom la Sénégalais yi bëgg donc euh, bu loolu weesoo itam euh, daal dina euh, remarqué moom président Pastef di Ousmane Sonko. doxalin gi nga xam ne euh, régime bi ñu ngi koy doxal ak yenn ci discours yoo xam ne discours mbañeel la discours haine la discours yoo xam ne daal mësul am ci Sénégal depuis Senghor jaar ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade waaye bii Macky Sall ñëwee ñu gis ne euh, lépp loo xam ne wàllu haine la wàllu violence la wàllu wàllu xoqatal la waaye itam wàllu faagaagal opposant moom Macky Sall daf ci rek bëgg sax ba mu xam ne sax ne lii nga xam ne mooy élection euh, présidentielle yu 2009 yi nga xam ne moom régime bu Macky Sall daal dina koy organiser amul lenn loo xam ne jaar na yoon ba tax moom euh, reconnaîtrewul Macky Sall comme un président légitime waaye euh, légalement il a été élu waaye ñi nga xam ne ñooy. Euh, askanu Sénégal ñoom jàpp nañu ne njiitu réew mi Macky Sall nekkul lenn lu dul euh, jaay doole waaye itam jaay seen alal yi nga xam ne ci wàllu géej geek wàllu pétrole beeg lépp loo xam ne daal askanu Sénégal constitution bi wax na ne ñoom ñoo ko moom waaye Macky Sall ak ña nga xam ne ñoom la àndal dañuy rek euh, daf ci lu leen neex ba nga xam ne askan fi gisu ci benn yoon boppam looloo waral sax ba li nga xam ne mooy manifestation yi ki nga xam ne mooy. ministre de l'intérieur ak kaddu yi nga xam ne daal dina ko ci yëkkati ne manifestants yi ay terroristes lañ moom ñaawlu na bu baax kàddu yooyu nga xam ne euh, ministre bi daal dina koy yëkkati mu jàpp rek ne euh, euh, ki nga xam ne mooy Félix Antoine Diome di ministre de l'intérieur yëfu xale def yëfu enfantillage dafa itam yëf yoo xam ne daal matul benn yoon ba tax mu au lieu ñu ja jéem a daal di xam lan la askan wi lan la ndaw ñi. di wax si loolee nga xam ne mooy manifestation yi ñu jéem a rek xam euh, daal di ci indi ay saafara moo gën ñi nekk di euh, traité de terroriste ñi nga xam ne ñooy askan wi ndax moom xam na ne sax ne euh, loolee nga xam ne mooy. Euh, manifestation askan woowee euh, li ñu ci gis du lenn lu dul nguur goo xam ne dafa tële waaye askan woo xam ne dafa doyal ci ka nga xam ne tànnoon na ko ngir mu mën koo jiite ci atum 2012 ndax ñu fàtte rek ne moom Ousmane Sonko ne na euh, élection 2019 yi amul lenn loo xam ne jaar na ci yoon bu loolu weesoo nag moom njiital Pastef ci lu jëm ci wàllu traitement bi euh, ci justice waaye itam ci GIGN euh, mi nga xam ne moom lañ ko dénkoon mu dem jëli ko euh, këram yóbbu ko fële sa section de recherche moom daal rafet rafetlu lii nga xam ne mooy professionalisme bu gendarmerie waaye itam saluer également li nga xam ne mooy seen taxawaay ndax amul benn yoon ci diir bi nga xam ne doon na jëflante ak justice benn yoon boo xam ne ñoom ñi nga xam ne ñooy gendarmerie di GIGN daal nañ koy maltraiter une seule fois donc professionnalisme moom mu daal di koy rafetlu bu baax euh, daal di xam ne rek également que euh, moom Macky Sall Euh, situation bii nga xam ne mooy prévaloir jamono ji ci euh, réewum Sénégal te mu tiisloo ko lool nee na kenn du responsable ku dul euh, njiitu réew mi Macky Sall ak ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur waaye itam ki nga xam ne mooy ministre de la justice di Malick Sall waaye itam ku mujj ki di procureur de la République di Serigne ba Guèye nee na ñoom ñeent noonu daal ñoo nekk di lëmbee réewum Sénégal daal di fi lal injustice boo xam ne képp ku jog rek ngir manifester droit bi nga xam ne moom moom loolu constitution bi may mu daal di lay bëgg a faagagal jaaree la ko nag euh, ci justice bi nga xam ne euh, sénégalais yi ñoo ko moom askan wi euh, ñoo ko moom moom nag daal di nay woo ñi nga xam ne dañu jóg ngir xeex ngir démocratie daal di dëgër si réew mi daal dina leen ñaan ngir ñu doxal li ñu doxal ci apaisement ci dal waaye itam woo leen ci ñu manifester li nga xam ne moom la droit yi. Euh, droit euh, moom la constitution bi may leen ci seen i droit rawatina ci wàllu manifestation ñu def ko waaye def ko ci jàmm d'une manière pacifique ba nga xam ne lii li nga xam ne moom la ñu bëgg euh, ci nguur gi ñu daal di leen koy defal ci anam gam ko bëggee li mu jeexalee nag gannaaw li nga xam ne mooy appel bi mu lancé MFDC moom am na ay exigence yu bëree bëri yoo xam ne daal dinañ koy teg lu toll ci fukk ak benn ci ay exigences bu njëkk bi mooy mu indemniser maanaam ndàmp ñi nga xam ne njabootu ñi nga xam ne génn nañu àddina waaye itam ñi nga xam ne daal nañu am ay blessures muy civils yi comme euh, ñi nga xam ne ñooy militaires yi euh, daal dina euh, wax également ñu libérer ci na mu gën a gaawee ñi nga xam ne ñooy otage politique yi nga xam ne jàpp nañ leen ci jamonoy euh, fitna yi nga xam ne moom la ñuy dund actuellement moom Ousmane Sonko xam ne na également ne gannaaw fitna yi nga xam ne am na yëpp ak ñi si ñàkk seen bakkan yëpp kenn du responsable ku dul Macky Sall ak ñett ñooñu nga xam ne lim nañu leen muy ministre de la justice procureur de la république waaye itam euh, ki nga xam ne euh, mooy ministre de l'intérieur nee na ñoom ñooñee ñooy responsabilité am nañu yéene sax dal di déposé benn plainte ci cour pénale internationale ndax lii nga xam ne mooy xew réewum Sénégal ak ndaw ñi nga xam ne ñoom la ñuy euh, faat du lenn lu dul crime contre l'humanité donc loolu nee nañu nag duñu ko bàyyi benn yoon euh, daal nañu rek euh, moom ko dal daal dina xam ne ni benn persécution maanaam benn xoqatal euh, du ñu ko nangooti fii ci réewum Sénégal te Macky Sall ak nguuram di ko teg euh, askanu Sénégal ak ñi nga xam ne ñooy opposants yi nee na nag itam euh, ñi nga xam ne gis nañu leen ci jamonoy manifestation yi ñu leen wax ay nervi nee na ñooñu aussi police war na leen identifier dal di leen jébbal justice ñi nga xam ne dañ cee faat ay bakkan yëpp justice daal di dal seen kaw ak ñi xam ne ñoo leen yónni sur le terrain ñu daal di leen topp ba justice daf yoon ci anam ga mu euh, gënee euh, beneen bi également muy euh, élection yi nga xam ne ci dañu jëm ñoom Ousmane Sonko ak ña nga xam ne ñoom la toggal fii nee nañu li ñuy exiger mooy ñu am ay élections yu transparente si jamono yi nga xam ne ci la ñuy dëgmal muy 2024 si élection législative élection locale yi waaye itam ci 2022 waaye itam ci 2024 ci élection présidentielle yi nga xam ne ci la ñu jëm moom nag nee na lu jëm ci élection locale yi moom war nañu ko organiser su na mu gën a gaawee te mu jaar yoon waaye leneen lu mu préciser mooy kii nga xam ne mooy ministre de l'intérieur te mu wane euh, matadi gu mat sëkk euh, ci euh, jamono bi muy janoo ko askan wi di waxtaan ak ñoom daal di accusé ñi nga xam ne ñooy askan wi ak ñiy manifester wàllu terrorisme moom nee na kookoy mënul am capacité daal di organiser ay élection looloo tax nag mu ne li nga kookoy nga xam ne mooy ministre de l'intérieur Euh, dañ ko war a euh, jëlee ci poste ba mu nekk maanaam mu démissionné wala euh, kii nga xam ne mooy njiitu réew mi di Macky Sall daal di koy dàq ci poste ba mu nekk lii nga xam ne nag mm, beneen bi nga xam ne daal dinañ koy exiger mooy droit civique yi nga xam ne daal dinañ koy dindi ci opposant politique yi ki ci mel ni Khalifa Ababacar Sall ñu daal di ko koy delloo bu ko defee ñoom ñëpp ñu am sañ-sañ daal di nekk candidat ci élection bu mu wanti doon bu ko defee ñu mën a jongante ak moom beneen bi nga xam ne nag wax na ko également également mooy euh, lu jëm ci wàllu troisième mandat nee na duñ ko nangul Macky Sall benn yoon amul waaw amul déet waaye ñu euh, matal ko ci anam euh, gi nga xam ne moom la constitution bi daal di wax bi mu jeexalee nag mooy benn appel bi nga xam ne daal dina koy lancé MFDC muy mouvement des forces démocratiques de la Casamance nee na képp koo xam ne doon na jóg ngir fitna na ko bàyyi teg ci suuf te euh, bëgg jàmm daal di jël armes yi nga xam ne ñoom la ñuy yoreb daal ko yóbbu euh, ci armée bi nga xam ne armee bu jàmbaare la armée boo xam ne la euh, ka fi nekkal mooy askan wi te ñu ànd ak armée boobu daal di dem identifier zone yi nga xam ne moom la ñu miné bu ko defee ñu daal di koy déminer sutural askan wi waaye itam muccal leen ci lépp loo xam ne lor la jëm ci minage yi nga xam ne moom moo am ci diwaan bu Casamance loolu nga xam ne moom lañ fi tënk yëpp mooy li nga xam ne moom la njiitu njiital Pastef di président Ousmane Sonko daal di janook askan bi xamal leen ko euh, ñu amoon yéen itam fexere ba ngeen jot si daal di xam lépp loo xam ne wax na ko fii ci Sénégal 7 euh, TV di leen jaajafal bu baax di leen jox dig daje si yeneen i événement ci situation bu difficile bi nga xam ne euh, daal na ko fii nekk ñu constaté rek ne Ousmane Sonko di njiital Pastef daal dina woo askan wi yëpp ci apaisement ci daal